Aliou Mané keroog dafa jël ay coups yu méttee méttee te boo ko woowee ci xeex du bëre du daw du dellu ginnaaw en tout cas lu mën a xew mooy njott naa ni ñoom ñaar. xeex dina am ci combat bi waaye du yàgg. mais est-ce que est-ce que ñaxta jaww ñu am na droit def erreur ndax boo xoolee ñamu départ ndool ñëpp dem nañ bàyyi ko fi boo xoolee soq ah ak euh, Aline Seye mi mu woon bëreel ba ñoom ñaar ba léegi kenn laalanteegul. Mm. liñ naan verdict ba la ñuy xaar ba tey. ba ba kenn gisu ko. boobu ba léegi mu nekk ci étape bi. est-ce que tey combat bi naka la ko war a bëree. bu mën a dellusiwaat ci place ba nga xamante ni moom ñàkk ñàkk jaayuñu fa la nekkoon moom. waa la ñàkk Ousseyn fi ko làmb yaakaare ba léegi gisaguñu ko foofu tey combat bi boo xoolee avantage bu bari kéwal moo ko am ndax kéwal daan ñàkk jariñu am na fu mu mën a yóbbu kéwal mais ñàkk jariñu daan kéwal mu waa ah, kéwal tuutalu ma ko wala yu mel noonu waaye amul fu mu mën a yóbbu ñàkk jariñu parce que ñàkk jariñu ñi mu départ ndoor ci làmb dem nañ bàyyi ko fi kon bu demee bay bëre kéwal retardam la kéwal nag bu daanee ñàkk jariñu day mën a dem ca kaw day mën a fekk si ñi nga xamante ne mooy ay ñoom soog ay ñoom gàmmu gay ak yeneen xale yi nga xamante ne ñu ngi ci làmb en tout cas lu mën a xew mooy ñaq làmb ji dafa laaj mu dal ci moom dafa laaj mu calcul ci moom dafa laaj mu jox xale bi cër xale bi nag bu doon man maay moom muy kéwal bu ma commencé rek du ma bàyyi tax xam naa ne kéwel li mu bëgg rek mooy commencé bagaar bi Ouzin daw jàppanteek ak moo taxit boo xoolee bu commencé bagaar bi loolu la bëgg arbitre bi àtte na mais kii di kéwal mu xeex ak ñaq jariñu est-ce que dina ah day day daw waaye tamit xeexkat la de mais est-ce que Kéwél xeex ak ñàkk ñu ma yaakaar ne Kéwél dafa waroon taxaw déglu ñàkk jaww ñu ndax ñàkk jaww ñu moom la combat bi gën a ëpp enjeu ci moom ndax kii Kéwél boo xoolee xale yi mu nekk noonu Bawol ñëpp ku ci nekk yaa ngi pourvu di dem yaa ngi pourvu di dem mais moom tamit am na sas boo xamante ni xale yi nekk bi Bawol sas nañ ko ko moom Kéwél. waaw xam nga Ousseyn Kéwél fi mu toll nii daa nekk xale boo xamante ne dafa war a dem ci làmb te xale bu waree dem bëre xale lay bëre bëre xale nag mooy calcul du bari adversaire bi boo ko liiree ci ay fraction de seconde arbitre war naa mën a prip nga wane ne fii du ma fa yegg mais xeex moom dina am lu mën a xew mooy ñoom ñaar dinañ xeex moo xam kenn ki day xeex ñu daw sàcc ko daan ko moo xam ñoom ñaar dañuy xeex ba kenn dóor sa morom mu daanu waaye ñoom ñaar ku ci nekk dina xeex dinañ sànnante Ousseyn ñoom ñaar. li ma ci xam ba xam ko ci mooy ñax bu duggee ci tànk kéwél yi leneen la ñuy wax na ñax moom bëreem ku ne ku ne xam na bu yooree ci kaw ci sa suuf la jëm. est-ce nag bu duggee ci tànk kéwél yi lam ca bëggoon dana ko ci am wala boog est-ce que bu duggee ci tànk kéwél yi est-ce que kéwél dina ko mën a résister man loolooy li ma jaaxal ndax xam naa ne fii fii ba suba kéwél xam naa ne fi ba suba kéwél du dem baa ji ñàkk ko tànk bu mu jot xanaa mu dugg te amul tànk bi wala mu jël coup bu yàq làmbam mais tànk bu mu daw jëli ragal naa boromam suuf la gën a jege ko kaw ndax ñàkk jariñu daa mën tànk boo xoolee général bu Fass bi muy bëreeg moom daa jël tànk bi baat ak tontu la da koo jël rek dëj ko mu toog booy bii di kéwal daa mën a xeex kéwal dafa mën a xeex te mën na bëre ndax boo xoolee façon bëre bi muy bëre waaye gis nga ni muy bëree nii moo lay wan ni jox na cër ki nga xamante ne mooy ñaq jariñ waaye ñaq a ngi déglu rek Ousseyn te lii la làmb ji laaj ci moom lii bu ko defee bu yàggee kéwal day xam ni ñëpp dañ koy gëmloo ni ñàkk mag la tam ñàkk du mag ñoom ñaar ay moroom lañ ci làmb rawante la rek mag amul ci làmb sax déedéet rawante la rek mais gis nga dina ko yóbbu ba ci saako yi xeex ñoom ñoom ñaar xam naa dinañ giit ak ngaas ñëwaat jàppante wala ñu na ma sàmmal ay tànkam rek laa koy digal moom kéwél li naan picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf na ma sàmmal ay tànkam xam naa ne bés bu ñàkk duggee ci ay tànkam leneen la ñuy wax gis nga ñàkk gis nga xeex nañu. ña ngay xeex lu ma la wax. dañuy xeex waaye ñàkk du xeex. Ah. ñàkk day ferma gàtt kewel tuuse na de. jàpp ñàkk jël na ku. Ah. gis nga jël na tànk ba mun ko jëlee baaxut. dana xeex ñoom ñaar dinañ jàppante Ousseyn lu ma la wax. kewel lii mooy fooram. lii mooy fooram wala ci xeex. fatt fépp di dox sa kaw di la dóor loolooy fooram kewel parce que yàgg na koo def ay ndaanaan di ci génn. waaye ñàkk jariñu kum jàpp sa tànk jàpp bu baax. ragal naa nga tëdd de. est-ce xam nga ne Kewel am na confiance. am na confiance parce que xeex bi avantage am la. te Ousseyn mbër du bàyyi mëninam. saa su ne ku lay bàyyiloo sa mënin. naan la teeyal te munoo teey teey arrangé wu la yàq sa làmb ku mën a xeex boo ñëwee naan ko bul xeex tey bëreel yàq nga làmbam bàyyi ko mu xeex ba bëre bi ñëw nga bëreeg moom ndax làmb loolu la lay séentu fetal nga fit fit nga fetal waaye ña Kewel mii mu sampee dëgg taxaw xeexal ñax. Ardo Kewel dem ñax dem na Ardo. ñax dem na Ardo. tàppal na ko. ndeysaan yóbbu na ko. arbitre baa ngi wax ak ñoom bëri nañu ba mi-temps arbitre bi sifflé waat na. kewel ñaq jariñu kewel wàcc na wala boog ñaq wàcc na ba tolloog moom kewel ngi ñoo ngi dox di demee latéral kewel ñaq jariñu ñoo ngay lewaatoo kewel ñaq jariñu combat bi mënut gaaw ñoo ngi xoolante ci biir bët walla boog di nappante kewel ñax kewel ràccaat na suul ay tànkam déplacé noo moom kewel waaye ñax a ngi direeku topp ci kawam ñoo ngay damante baaraam kewel boo xoolee benn loxo lay lewaatoowee daa mel dafa bëgg xeex xàcc na léegi ñax wàcc kewel ñax jariñu Kewel ñàkk jaru ñu bëre leen amateur yi ku nekk a ngi ne tekk toog di la seetaan supporter yaa ngi di toog Kewel ñàkk cokkaasa léegi moom Kewel ñàkk boo xoolee nanguut a xeex li muy def di dëgg ci moom xeex nañu dóorante Kewel ñàkk ñàkk a ngi koy accéléré. mu ngi ñàkk fi mu toll nii daa bëgg jeexal combat bi ta wax naa la ko faw ñu xeex ñoom ñaar nga wuy ko ci xeex mais gis nga kéwal dafa muus day natt rek sànni benn fermé waat garde bi parce que taxawaay bi dafa baax kéwal mbër am na nu muy taxawee doo am foo ko jaar te kéwal noonu la mel taxawaay bi dafa baax gis nga ñàkk daw na jëli ko ñoom ñaar faw ñu xeex ñàkk faw mu taxaw xeex a kéwal jéem ko juumloo ci xeex bi mën koo sàcc daan mais boo ñëwee ko jàpp rek du yomb gis nga Ouzin day wuy si ñaq wuy na ci xeex bi du wari parce que faw ngeen xeex làmb ji xeex moo koy jeexal faw ngeen xeex ba ñett ni muy xeexee baaxul de waaw parce que kéwal moo ko dàq xeex parce que kéwal mun na xeex gis nga ñaq daw na jëli ko am na tànk bi bu baax am na tànk bu baax kal na ko mbot daan na ko wala déet daan na ko daan na ko waxoon naa la ko Ouzin bu ko bëggee daan faw mu yëkkati ko ndeysaan ñaq Eh, ñàkk daan na. newoon naa la lu mën a xew. yéegal lu mën a xew.